solo leen ñu gisee rek ngeen xam ne ñu ngi fii ci Tëngéej nekk fii ci jàkka ji nga xam ne si ne mooy jumaa Cheikh Tidiane Niang mu nekkal fii sëriñ daara yi nekk njiit ci sëriñ daara yi nekk fii ñu fas yéene ànd ak yéen incha allahu ci programme boo xam ne si ne sëriñ daara yi ñu ngi koy waajal kon après imam incha allah ñu bàyyi imaam rek mu def ñaan su defee ñaan ñu delsi ak yéen ci plateau bi alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di sant borom bi tabaraka wa taala bi nga xam ne may nañu ñuy jéem pour taxawal li nga xam ne moom la yàlla wax te mooy alquranul karim lépp luñ ci war a liggéey ñu di ko ci liggéey sëñ daara di ko ci liggéey ba tabaarakallaahu ñoom ñoo war a taxawal loo xam ne lii ah ci alquran du yàlla bëgg la kon nag ñu fas ko yéene ubbee ñaan jàgg fatiha salaatal fatihi ayatul kursi xul wallaahu falaq ak naasi salaatal fatihi ñaan borom bi tabaaraka wa taala mu defal ñu ci ndam ba pare nangul ñu ko te luñ ci ñaan luñ ci def rek yàlla ko yàlla nangu bi jeex i muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bismillah auzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wal haadi ila siraatika al-mustaqiim wa ala aalihi haqqa qadrihi allahu laa ilaaha illaa huwa al-hayyul qayyuum maa fi samaawaati wa maa fil ardi man dhaa allazii yashfa'u 'indahu illaa bi'iznihii ya'lamu maa bayna aydiihim wa maa khalfahum wa laa yuhiituuna bi shay'in min 'ilmihi illaa bimaa shaa'a wasi'a kursiyyuhu samaawaati wal arda wa laa yaa'uuduhu hifzuhumaa wa huwa al-'aliyyul 'aziim wallaahu ahadun allaahu samad lam yalid wa lam yuulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad bismillaahi rahmaani rahiim qul a'uuzu bi rabbil falaq min sharri maa xalaqa wa min sharri gaasiqin izaa waqaba wa min sharri nafaasaati fil uqad qul a'uuzu bi rabbin naasi malikin naasi ilaahin naasi min sharril waswaasil xannaasi lazii yuwaswisu fi suduurin naas min allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-faatihi limaa ughliqa wal xaatimi limaa sabaqa naasiril haqqi bil haqqi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 fa tabaarakallaahu kon su ko defee rek ñu tàmbali ak yéen ñu bàyyi imaam Sall mu présenté wu. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على من بعث إقامة الحجة والبرهان sayidi bani adnaani yanbu li xikmati wal xirfaani wa huwa sallallahu alayhi wa sallam suma awrasna alkitaaba lasina stafayna min ibadina mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu seen mbokku daara Oustaz Baye Mor Sall moo leen di nuyu di leen ziyaara di ziyaara imaam ak ñi nga xam ne ñoom la ñu bokkal mooy imaam Cissé Touré imaam Bakary imaam di leen ziyaare bu baax a baax di nuyu mbokki sëriñ daara yëpp incha allahu taala ñu gàttal kàddu gi ba ci kanam rek incha allahu taala. kon mbokk ginnaaw bi ñu jógee ci imaam Sall ñu jox imaam Bakary mu présenté wu. alhamdulilah alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina muhammadin al amin wa ala alihi wa ashaabihi saadaati al awfiya nuxayikum bi taxiyati al islaami ala waxi assalaamu aleykum wa rahmatullah seen mbokk Bakary rek moo leen di nuyu di nuyooti di siyaare sun mag ñi nga xamante ni ñoo rafetal jotaay bii Cissé Touré ñu ngi lay jaajëfal ci bis bi nga xëy moom ñu ngi ñu gunge li rafet na lool lool lool lool kontaanati nan yal na yàlla jaar fi mu doon jaar bis bi nuy waajal ndax njeexaat kat foo jëlee doom da nga fay delluwaat sab doom sab loxo kon yàlla na yàlla may ñu fekke bis ba incha allah rabbi la vingt ba kàddu gi ñëwaat incha allah. jërëjëf imaam Bakary imaam Sall. su fekkee ne e, dégg na li nga xamante ne imaam Bakary moom la wax. Mhm. loolu li muy tekk rek mooy yéen nga waajal bis ban bis ngeen waajal. waaw imaam Cissé Touré comme ni ko imaam Bakary waxee e, sëriñ daara yi nga xam ne ñoom ñoo nekk département Rufisque. Mhm. waaw mbooleem fu sëriñ daara nekk nag. ñoom ñooy waajal journée nationale. Mhm. Euh, mu tombeeg le 20 avril. muy mercredi muy àllarba bii ñu jublu. ñu ngi ko war a defee nag fii jardin public. ci Tëngéej. journée nationale la lan. waaw journée nationale de daara de alquran lañ koy moom lañ ko jagleel mbooleem fu daara nekk rek fu sëriñ daara nekk rek bokk nga si. incha allah. maanaam lu waral journée nationale lu ko waral. waaw journée nationale bi li ko waral euh, sëñ Cissé euh, état dafa am boo xoolee at bi yëpp. Euh, euh, fu si nekk rek am nga journée boo xam ne moom lañ la jegleel mhm. daara tamit am journée bu ñu ko jagleel muy alquran. Mhm. waaye ñoom dañu doon dañu seetlu ne état mhm. euh, bisu alquran la vingt avril bu daan ñëw. duñ si xool li nga xam ne moom la daara def. kàngam yi ñu génne. li daara produire. li daara def imaam yi ñu génne. asatis yi ñu génne. au lieu que ñu wane loolu déedéet. dañuy dem si rond-point yi. ci gaaraas yi xool xale yi nga xam ne ñoom la ñu gis ñu nekk fa wala ak fàqumaan yi mm-hmm. filmer leen suñu leen filmer ñoom la ñuy génne mm-hmm. waaw loolu nag la ñuy wan euh, population bi. Mhm. jaxase sëñ daara yi ak population bi. Mhm. déedéet loolu du daara. Mhm. daara mooy ki nga xam ne moom mooy former imaam daara mooy ki nga xam ne mooy former ustaas. daara mooy ki nga xamante ne mooy former société. ba boo ci génnee société bi mën a baax. waaye nag ñoom defuñ loolu moo tax ñun léegi bis bi. comme ñoo ko moomal suñu bopp. ñu nangu ko téye ko suñuy loxo. wan leen ne leen li ngeen wane du loolu lii mooy yoonu daara. kon su ma déggee wax ci dafa mel ne journée de taalibe la. journée nationale de taalibe moom la. Ah. waaye bu ñu ne journée nationale de taalibe sëñ Cissé lépp dugg na ci biir rek incha allahu taala. waaw ah. léegi man dama am lu ma seetlu lu ma seetlu mooy. Mm-hmm. journée de taalibe yàgg nañ koo def. Mm-hmm. mais dama daan gis ñu ko daan organiser ci ñu ko daan organiser mooy télévision yu mel noonu. Mm-hmm. yéen foo nekkoon ba heure boobu maanaam ngeen bàyyi ba jamono yi ngeen dugg. waaw a boobu dafa jotagul woon. Mm-hmm. xam nga ñoom boobu dañu jiitu woon ci média yi. Mm-hmm. léegi nag ñun sëriñ daara yi nag léegi dafa am ñoo xam ne. Mm-hmm. ñi ngi ci biir média bi. léegi nag comme ñi ngi ci biir média média bi ñun dañuy génn nag ñoom fa ñu daan ne. ñu fekk si leen ci loola. moo tax ñoom amatuñu pouvoir ñoom état ñun nag média bi foofu lañ ne boobu am jotawuñ si woon rek. waaye léegi nag jote nañu si état ci ci bi incha allah. léegi jot gi nga esprit bi. maanaam fan la bàyyi ko. waa esprit bi mi ngi bàyyeekoo ci mën nañu wax ne buñ doon wax ne mi ngi bàyyeekoo ci aar daara man ngi bàyyi ko ci aar daara mm-hmm. ci mën nañu wax ne oustaz Makhtar Sarr mm-hmm. oustaz Babacar Sylla ñooñu nga xamante ñoom la yàlla dogal ñu nekk ci boppu mm-hmm. association bi doon si ay kàngam yoo xam ne kenn lañu si ñoom xalaat bi daal mën nañu wax ne ñoom ñooñu moom mën nañ leen si cité bari na nag ay kàngam yu ci ne waaye daal ñooñu moom il faut que ñu ñu cité leen si xam ne daal ñooñu daal bokk nañ si ñi li waral tey suñu demee bañ mën ko génne ba média bi yëpp mën si jot ñooñu moom bokk aar daara am na ci rôle bu bu am solo sox la ci joué. Mhm. waaw kon mën jàpp ne aar daara moo moo moo organisé mbir mi wala. Hmm, waaw mën nañu wax ne moo ko organisé organisé wu ko ndax buñ ko wax ne comme moo ko organisé. ñooy suñuy kilifa si njiit yi. Mhm. waaye nag ñoom daara la ñuy liggéeyal. Mhm. daara moo leen fi tax a tegu. loolu moom moo tax rek ñoom ñu nekk ci bopp bi waaye nag lépp rek. day delluwaat ci biir daara ji. waaw jërëjëf dama gis ne. Hmm. am na ay jamiyaat yoo xam ne si ne ñu ngi doon wax ne. Hmm. li leen tax a jóg mooy jàppale daara. Hmm. leen tax a jóg mooy fexe ba ak ak yelleefu daara. tegu ci yoon waaw jamiyaat yooyu ana ñu. waaw di xam nga loolu yëpp moom euh, sa Imam Cissé euh, loolu ay wax la woon rek. Uh-huh. ñooñu moom dañ daan dundee daara xam nga dundal daara ak dundee daara duñu benn. Uh-huh. jamiyaat yooyu ngay wax yooyu yëpp. mën nañu wax ne bu dee. ci wàllu daara. Mhm. ñooñu taxul may wax. Mhm. waaye ñi tax may wax mooy ñi nga xam ne dañu defal seen i centre ay centre mhm. ne dañuy dimbale daara. dem bitim réew dem di yalwaanee daara. ñooñu moom taxul ñuy wax waaye nag bu dee jamiyaar yi nga xam ne. dañoo war jëm ci wàllu alxuraan. Euh, bari na. Mhm. waaye ñoom ñëpp dàtt bi fi ñu jëm. Mhm. mooy liggéeyal alxuraan rek moo leen tax a jóg. Mhm. waaw liggéeyal alxuraan moom moo leen tax a jóg. waaw ñooñu nag moom ñi ngi fi jamhiyaat yi bari na. waaye nag bis bi bu ñëwee amatul nag jamhiyaat. ñëpp lañu ñu woo. département bi bàyyiwuñu kenn képp koo xam ne daal yaa ngi jàngale alxuraan incha allahu taala rek bis boobu woon nañu la si. waaw. jërëjëf Imaam Bakary maa ngi déggal li Imaam Sall wax. mu nekk loo xam si ne message bu jàll la man dama gis ne zone de taalibe xëy na euh, sëñ daar yi dañ koo yeex taxawal ndax dama naan gis ñuy am lu ñuy wane yoo xam si ne dafa mel na day tilimal daara wala yu mel noonu yow bëgg na seetaan bu njëkk sa xel ci la la doon dem waaw xuloo bu métti rek mm-hmm. ndax man am njóobeen laa mm-hmm. soo mosaan di seetaan télé damay gis euh, journée nationale de daara mm-hmm. ndax man sama soxna dafa jàng tubaab moo tax man sax su dama naan li nga def ci tubaab boo ko defoon ci daara. kon tey ji instant ñu ngi xëccoo masala yi. donte toggukat la. waaye su ma ko mosaan seetaan gis xale yi di yalwaan. ñu wane ñoo xam ne dañuy nekk comme ko oustaz waxee. maam vagabond la leen mën a ñu nekk tilim lool. di buuju. ñu ne ñu ñooy taaliba yi. man leen de taaliba buy yelwaan. diisee da koy fekk daaraam. am na bind bu koy xaar. kon ñoom dañuy xool li daara ñaawle. ci misaal ci waxin te daara ñaawlewul dara. ñu wane ko pour saboter daara. Mhm. fekk nag daara am na lu mu rafetal lu rafet lool. Mhm. moo tax daaw bi ñu ko taxawalee ñëpp kontaan. Mhm. ndax lan fa gis xam na ne ko nekk daara kon lépp lu rafet la. macha allah daara lépp lu rafet la. yéex a taxawal gi kay jëmmal gi ba ñëpp di ko dégg kay moo naqari ñëpp. waaye lii moom. suñ ko mënee taxawal sax at di ko taxawal gën ko yaatal. kon den xam ne kon la la paase woon ay naxe la. ndax man su la national de Daara am na ñu ma seese woon indi ma ay dàll ak gis ñu def ko ci face bi. nan ñu photo woon ñu ko ci ma xam ne ko ñii dañ ma yelwaane. su la xam ne kon ma doon yelwaane. kon loolu eh, ñu bàyyi ci xel bu baax kuy sëñ daara nga bàyyi ci xel bu baax a baax. kon am na ñuy ñëwal daara nekk dañuy yalwaane daara. waaw ñu bàyyi ci xel ba mais suñu national de daara daal na ko daara jëlal ay boppam ak loxoom. doxal ko. xam nañ ko doxalee noonu daaw. ànd ko ak aar daara ak ñëpp nag macha allah rabbi. walilahi alhamdu wa sukur macha allah léegi eh, gis naa ne loolu laaj na ab liggéey. Mm-hmm. parce que journée de taalibe bi buñ ko waxee mm-hmm. xel yi dafa am fu muy dem mm-hmm. maanaam journée de taalibe bi buñ ko waxee xel yi du dem ci sëñ daara yi direct sëñ daara yi xel yi day dem ci sëñ taalibe bi taalibe bi lay dem léegi yow man jéego ngeen yaakaar na man nga ko def ba nga xam se ne suñu waxatee journée de taalibe bi xel yi dem ci yéen waaw sëñ daara yi euh, gën a liggéey rek ñu ñu gën a liggéey bu baax a baax boo defee ne ku ne sa daara yow yaay jëwriñ jë nga liggéey ci bu baax a baax ba nga ko gisatib taalibe bi di ko gën a nawloo waaw ba nga xëy ne bu bu journée bi ñëwee doon xaar ba nga xëy ne daara am na jafe-jafe rek ñu daje. Mm-hmm. na nationale de daara war na màgg màgg boo xëy ñun ñoo koy dundal kenn dañu ko dundalal. Mm-hmm. waa nañ ko jël suñu bopp spécial. nga xëy kenn duñu dundalal bés bi incha allah loolu rek laa bëgg ma loolu laay jox suñu daara yi boo defee ñu gën a liggéey ci daara yi. gën a jaxasoo ak suñu taalibe gën cee liggéey bu baax a baax a baax ndax man bis bi sax xaw naa cee mm-hmm. ndax heure bi daaw gën naa bari mbooloo lool lool kon ñun ñoo ko war a gën a taxawal bu baax a baax bu ñu bàyyi ba jafe-jafe jot rek ñu ñëw taxaw jafe-jafe ba jeex ñu demaat déedéet kon ñun nañ ko téye suñu bopp incha allah bu ñu ko kenn màggalal ñu koy màggal suñu bopp ndax ñun ñoo nekk kat ndax bu naata xam ne la ca dégg ba moom mi nuur ba ca ban ba ginnaaw ñu ñoo nuur ba ca ban ba nag kon ñu jóg su bopp taxaw ko suñu bopp incha allah rabbi waaw. imaam imaam Babacar dafa am lu mu wax. ci kàddoom ma jëlee ko ci. mooy xaw na cee tiit. Mm-hmm. est-ce que yéen mbaadu dafa war jàpp ne. Mm-hmm. Euh, li tax ñu taxawal zone de talibé da ngeen a tiitoon wala. déedéet du tiit sax dafa dañu dañu dañu jël li ñu moom sëñ Cissé. Mm-hmm. waaw du tiit. man gisuma ne tiit am na. dañu bokk ci réew mi. doon doomu réew mi. juddoo ci réew mi. di defar ñi gën ci réew mi. waaw nag am si nag cër bu mat sëkk. Mhm. suñu cër nag léegi dañ doon dañ doon bu doon bu doon mën nañ ko wax dañ doon nelaw. Mhm. léegi yeewu nañu lu ñu moom la ñu téye fukki loxo ak juróom. Mhm. xaaratuñu si kenn. moo tax bi ñuy def euh, demande bi pour préfet. di wax ñu ne euh, autorisation ma ne leen non non. du kooku mooy kilifa dëkk bi dañ ko war a yëgal rek. waaye loolu bis la bis ba la boo xam ne ñoo ko moom. dañ koy téyel suñu bopp suñu loxo fukki ak loxo ak juróom. incha allahu taala te bis bi dina am réussite ci kàttanu yàlla incha allah. imaam. Mhm. tey jii. Mhm. Eh, zone de taalibe bi mhm. nga xam si amal nañ ko Tëngéej. te ma gis ne Tëngéej lañ ko njëkk a amale. boobu gis-gis yow en tant que imam. nekk euh, Tëngéej. Euh, ma fàttali nga wax ñu ba ban position nga taxawee ci côté boobu. waaw position bi mu fi taxawee wax dëgg yàlla xam nga comme euh, Tëngéej. comme li nga doon wax ci jamhiyaar yi dafa bari ay ay ay mbooloo. Mm-hmm. mbooloo bu ci nekk yàlla dafa dogal loo gis rek am na ku fare boor ba. Mm-hmm. bu dee nag fii tëngee sëriñ daara yi nga xam ne ñoom ñoo nekk tëngéej mm-hmm. ci département bi su dee Rufisque noor man mii di wax ak yéen. ndongo li moom la ñuy wax moom mooy seen njiit moom la ñuy rais bi moom moo jiite Rufisque noor man position boobu ci wala wala wala waaw ci aarad ijtihaad bi mhm. waaw ci wàllu li jëm ci wàllu ijtihaad mhm. waaw mooy madaarisul quran al asila waaw madaarisul quran si mhm. côté bu jëm yooyu yëpp insha allahu taala foofu lañu si lañ si taxawee imaam mu mel ne daje nañ fii mboolem sëñ daara yi ñu ngi fi eh, am nañu ñëwut waaye am na nañu leen fi teewal ma gis t yi mu rafet lool taaru lool imaam t-shirt yi luñ ci bind waaw imaam Cissé t-shirt yi liñ si bind mooy aar daara journée nationale des talibés 20 euh, avril 2002 à Rufisque loolu la bind si ginnaaw waaw 2022 à Rufisque ci kanam ñi ngi si gin ñi ngi si si kanam ñi ngi si bind damay yalwaar ngir yàlla sarax ma ma dem ngir yàlla wala nga ma bàyyi ma ma dem ngir yàlla loolu la si bind waaw lu tax ngeen njëkkee ci ginnaaw aar daara bi waaw li tax ñu di def si aar daara waxoon naa la ko ci biir jàkka ji boo xoolee ñaari at yi passé dañu dund daara dafa dund lu metti lu metti li mu dund mooy Covid bi fi amoon saay-saay yi bëgg profitoo bëgg a tas daara ci loolu nag ci la kuréelu aar daara sosu ci sosu bi mu ngi déparé ci oustaz Makhtar Sarr imam Babacar Sylla ak ñañ àndal liggéey bi ñoom ñoo taxawu daara tuddee ko groupe bi nag jamiya bi aar daara loolu moo indi turu aar daara waaw ngir yàlla hmm. sa raxma hmm. ngir yàlla hmm. loolu luy signifié waaw li muy mooy euh, dafa am li ma la ko waxee woon si biir taalibe bi nekk ci daara ji il faut que mu génn am lu mu uti loo xam ne day koy dëgërloo biiram pour mën a jàng téere yàlla bi loolu nag bi mu amee saay-saay yi bëgg si profitoo ci biir covid bi ne loolu du am di ramasse daara yi di yóbbu te nag dama koy wax ne toujours dama koy wax sama wax sama wax mhm. ñaari daara moo fi nekk mhm. école bi ni mu amee ci école bi noonu la amee ci daara ji mhm. école bi am na école privée am na école publique privé bi mooy ki nga xam ne doole mate na ka amee na ko bu xëyee day jël doomam sàng ka solol ko blousam jox ko oto mu oto ko yóbbu moo koy indiwaat ah su weer deewee mu génne ci poosam fay kooku privé la public bi mooy école yi nga xam ne état moo ko fi def kooku am na koo xam ne doole mati wu fa su xëyee bulusam lay sol fukki dërëmi mburóom gàddu kayem dem jàngi su pare comme taalibe bi génn di uti yalwaana saraxam noonu lay def dellu siwaat bon public ak privé ni mu amee nag ci public bi noonu la amee tamit ci daara yi am na daara privé am na daara public daara privé bu doon ci jamono ji buñ ko doon chara mooy daara internat am na koo xam ne euh, doole may man man may na kaka day jël doomam yóbbu ko internat mu def inscription mu fayal ka weer weer wu dee mu yóbbu sëñ daara ba la mu koy jox dundam ak lépp di ko fa fekk kooku dafa bëgg mu jàng téere yàlla bi waaye am na keneen koo xam ne bëgg na doomam jàng téere yàlla bi waaye nag dooleem àggiwul foofa mu jël doomam jox ko sëñ daara bu mel ni ki imaam Cheikh Tidiane Niang bii pour mu jox ko ko mu jàng xale bi nag pour mu mën a jàng li muy jàng mu man si am ndëgër laay ala kulli aalin il faut que mu génn dem jëli sarax bi jëluwaat si daara ji loolu moo waral yalwaan bi loolu nag lañ bëgg a xañ sëriñ daara bi moo tax na ñu koy dénoncé dama yalwaan ngir yàlla sarax ma ngir yàlla wala nga bàyyi ma ngir yàlla ma delluwaat ci daara ji loolu mooy sabab bi. t-shirt yi ku ci bëgg lu muy def. ndax man boo ñëwee man na ma am wala. waaw t-shirt yi symbole la bon symbole la. pour bis bi le 20 avril bi ñu defoon ko daaw defaat ko ren ku ci bëgg tamit ndimbal lay doon rek kenn ku ci nekk am na li ñu lay laaj bariwul nga joxe ko pour lan jox ko say taale bi lañ sa jëlee ñu defaat ko ci kees gi nga xamante ni lañ moom lañu euh, organiser bis bi loolu mooy sababu ñu defar t-shirt yi rek incha allah. soo leen gisee lii ngeen am na ngeen xam ne am na lu xew lu xew fan la xewee ak ñu koy amal kon boog ñu déglu Cheikh Tidiane mu wax ñun nu muy demee. bismillahi rahmaani rahim mbokki julli yi ñu ngi leen di nuy di leen ziyaara bu baax a baax mbokki alquran mbokki sëriñu daara yi eh, ak yaayu daara yi soppay alquran yëpp eh, région de Sénégal ñi fi nekk yëpp ñu ngi leen di woo ci bisu alquran boo xam ne moom ñu ngi ko tuddee surne national des taalibe taalibe nag bu ñu ko waxee sëriñ daara ba moo ci jiitu waaw yaayu daara baak eh, ak mboolem koo xam ne bi alquran la rek ci taalibe yi la bokk. ndax Sénégal boo doon xool tey ñëpp ay doomi daara lañ. kon bés boobu nag mu ngi war am mercredi bii di ñëw yemoo ak le 20 avril 2022 ñu war ko organiser fii ci Tëngéej ci place bi mu war a amee ñu koy wax jardin de publique bu Rufisque. mu war a tàmbali nag huit heures euh, incha allahu taala ñu war am benn marche bu ñu war a dox tuddee ko masiratu salaam rek mooy doxub jàmm. Euh, boo xam ne mu ngi war a tàmbalee ci fi ñuy tuddee juuti bi. Euh, jël yoon bi route deuxième route nationale bi bu ko defee euh, dox doxub jàmm génneewaat ca jardin public ba incha allahu taala bu ñu dikkee nag fas yéene nag léegi tàmbali programme bi à neuf heures incha allahu taala bu ko defee huit heures rek ñu ngi woo mbooleem sëriñu daara yi nekk ci Tëngéej ak région de Dakar yëpp nañu teew teewaaleel ak seeni xale bu ko defee ñu mën a tàmbali dox bi mën a teele egg ca palace ba mën a tàmbali jotaay bi incha allahu taala waaw bu ko defee eh, imam Alioune Badara Ndaw moom mooy jógee Kaolack bu soobee yàlla defal ñu eh, waxtaan bi ndax comme moom daaw moo ko defoon te ñëpp eh, waxtaan woowu gisoon nañ ne leer na jaar na yoon moo tax ñu doyloo waat ko woowaat ko pour mu ñëw jël ko bu ko defee nag programme bi ni ko Oustaz Baye moo Sall waxee ñu ngi ci ànd ak aar daara te boo nee aar daara ñëpp a ngi ci biir ittihaad bi mu ngi ci biir ndax turu aar daara wii ki ko ki ko xalaat kenn la ci membre Ittihad bi tey moom mooy secrétaire général Ittihad bi mooy Oustaz euh, Mansour Samb kon Arda kon Ittihad bi mu ngi ci biir. ba tax na ñun ñii defoon nañ tournée boo xam ne démb rek euh, président Ibrahima Kébé bi jiite département bi demoon nañ fa man ak Oustaz Bamba Diamy Oustaz Ablaye Badiane ak euh, sëñ Souleymane Mangane waaw ak Oustaz Alaaji Gaye seeti woon ko kon ñu ngi si ànd ak Ittihad bi ñu ngi leen si woo bu baax a baax nañ si feeñal seen taxawaay ñu ngi si ànd ak tamit rabitatul madarisul quraaniyya ndax ñu ngi doon ñu ngi doon ñu ngi doon woo ci seen programme bi ñu war a amal démb ak tey mais xam nañ ne ñun waa Tëngéej am nañ ngànt ndax taxawaay bi ñu nekk nii kon ñu ngi si ànd ak rabita bi ñu ngi si ànd ak waxdatul kataatib ndax Cheikh Saliou Thiongaan démb sax mu ngi ñuy woo ci guddi ci ci ci euh, ngoon di ñu wax ne ñoom am nañ réunion tey euh, tey jii nii ba tax na ñu euh, ku jógee fii sax boo fa mënee jàll ngir lépp pour mën a jàllale information bi rek kon aar kon euh, waxdatul kataatib ñu ngi si biir ah boo demee madaarisul quraan yi al asila ñun ñi ñëpp maamiru madaarisul quraan al asila lañ kon euh, lii sëriñ daara yi si réew mi ñëpp ñoo seq bés bi bésu alquran la ñu tuddee ko loolu aw tur la rek maanaam li ñuy wax ne national nationale des bi aw tur la waaye waa alquran yëpp ko seq wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. wa rahmatullahi wa barakaatuhu. lii nga xam ne moo ñu tax a taxaw te mooy surne alquran bii te alquran waxu yàlla la kon ku bëgg yàlla bu la wooxee ci mbiram yàlla da war a ñëw kon surne bii ñu ngi ci woo képp koo xam ne ngi nekk ci réew mi ñu ngi ci woo sëñ yi ñoo ci jiitu ñu ngi ci woo ñi nga xam ne ñooy jàngale am na ñuy jàngale ñoo xam na ñi arab la ñuy jàngale am na ñuy jàngale français waaye ñoom ñëpp lañu woo seen taxawaay ak lépp loo xam ne lii mën nañ koo dimbalee bés bi soxla nañ ko ñu ngi woo maire yi ñi nga xam ne ñoo yor maire yi ñu ngi leen di woo te ñu ngi bëgg seen loxo ndax amoon nañ ndimbal daaw waaye ndimbal loola agsi wut ren nag dañoo bëgg li ñuy dimbalee mu agsi te nañ xam ne nag ñun ñoo koy taxawal waaye ñëpp la war ndax tasaare alquran ndax yonent bi sallallahu alayhi wa dafa waxoon ne balliqoo walaw bi aayatin kon ñoom ñëpp a war a jotal boo munta wax bu jotal itam nga def loo mën joxe ci sa loo mën a joxe nga génne ko joxe ko ngir bés bi bu ko defee bés bi mën a jaar yoon ngërëmal yàlla rek lañ ciy am fa tabaarakallaahu kon yal na koy yal na yal nañu yàlla jàppale. monsieur le préfet itam ñu ngi koy woo ak mboolem maire yi ak ñi nga xam ne ñooy homme de loi yi police yi. sàndarma yi ñoom ñëpp bayiwuñ kenn ñu ngi leen di woo ak ilimaan yi ak chef de quartier yi ak euh, para kii ñi nga xam ne ñooy euh, am na lu gox yi bàjjani gox yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo bayiwuñ kenn bépp association association ñu ngi lay woo ndeyi daar yi bàjjani gox yi ñi nga xam ne ba ñooy bàyyi daara yi bàyyiwuñ kenn ñi ngi woo ñëpp ñëpp nañ dikk teew ca bis ba ku munta teew itam yëkkatil looy ala nga xam ne mën nga koo joxe nga jox ko nga joxe ko def ko ca bis ba bu ko yefee ngërëmal yàlla rek ngay am ak ndimbalal yàlla fa tabaarakallaahu kon yaakaar naa ñëpp dañ nañ kon réew mi ñëpp ñu ngi leen di woo képp kuy am waa képp koo xam ne kii am nga nekk commerçant yi itam ñu ngi leen di woo commerçant yi ñu mag yi ñu ngi leen di woo ñu joxe li nga xam ne mooy seen wàll lu ci bés bi ndax bés bii kat ku ko dundal dundal nga alquran yàlla ji waaw kon nag na ko ñëpp ñëpp jàpp xam ne bis bii kat mooy bis boo xam ne biy yéen mooy bésu yàlla waaw ndax nit yàlla yi ñoo ko yor ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu wax ne man ta'allama alqur'ana kon fa tabarakallahu ñii ñooy ñi nga xam ne ñoom lañ war a gën a jàppale ci seen bis ndax da ngay gis bu fekkee ne ñi nga xam ne yeneen bés la ñu ciy def ay millions. kon fa tabaarakallaahu ah ñëpp kenn desut yal nañ yàlla jàppale ci bés bi yal na ko yàlla réussiral ba mu nekk bés boo xam ne bii dootuñ ko fàtte mukk ba ilaa yawmi yasuuna allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim jërëjëf imaam kon mu mel ne waa daara ñoo taxaw temm jël bis bi nga xam si ne ñoo ko momal seen bopp muy journée de daara ñu fas yéene ko taxawal fële ci Tëngéej ci serne public ba kon boog ñi ngi woo waa daara ñi ngi woo ñëpp ndax bu tuddee daara rek tudd nañ ñëpp képp koo xam si ni imaam nga moo xam looy man di yëngu rek waa daara ñu ngi lay woo di leen jox dig daje la vingt bii di ñëw fële ci Tëngéej ca serne public asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu